plage bu gars yi di use gaay di sangu yëpp gars yi nangu nañ ko Atépa taxaw na xeex na loolu Aby Ndour nag du mu jël suñu jardin public parce que ñun fi lañ doon féexloo fi lañu maggé fi ben tiwo onance ONAS fi nekk si suuf dis bu tojee bomb la canal bi mi ngi génn fele ci geej mu jël ay cantine tàngi sam occupé ba occupé trottoir bi on va pas l'accepter on va pas l'accepter il faut qu'il s'arrête euh, euh, voilà ba pare ñu ngi interpellé président président Macky Sall

si continuité boobu la jël place bi jox ko abi Ndour mu continuer di ko liggéey di si euh, exploitation bon maintenant euh, certes c'est un domaine public il faut aussi ñu xam affaire droit tuuti parce que domaine public la un domaine public aussi loo aussi exploité dafay nekk loo xam ne c'est révocable dañ ko war a mën a dindi à tout moment donc warul nekk construction donc léegi bi ko maire bi defee affaire bi am ay wax si la ñu wax ne que euh, ñu joxe avis wu conseil quartier bi donc les qui est le conseil quartier bi comme le président bi maire saisir ma réunion au conseil de quartier bi ou quartier bi de léegi bi ñu ñu le ma expliqué maire dafa bëgg suñu xalaat affaire problème comme nous ne le donc euh, maire bi euh, nous euh, expliqué en gros mais comprendre ñu woon bu baax ñu nous mu wax ñu affaire bi naka la légui biñu wowe abindour aussi bi mu ñëwee mu jox ñu ay kayit yoo xam ne ay yu ñu signé la normal ak naka lañ ko joxé terrain bi ba mu bi mu doré ba légui donc ñun tamit ci base bobu lañu xol xool ñu ne gisuñu ci problème bo xamné waru ñu ko ko baña jox donc si lañu ñu bind mairie bi joxé suñu version né kat ñun li lañ xalat donc moy abindour Ndour exploiter affaire bi mais à condition mu bañ fa tabax et mu nekk lo xamné tabax la mhm. donc ku xol li xamné tabax amu ci moy ay cantine lañ ci def yoo xam ne mën nañ ko démonter à tout moment ay table ay chaise lay nar a teg donc loolu mën na nekk milieu boo xam ne nit day ñëw di ci feexlu donc ñun si base boobu lañ yem bon léegi nag affaire bi dem na ñuy wax naan fii rond point la euh, dafa jege. Euh, résidence Badamier wala dafa jege ambassade etc. mais ñooñu ñëpp Aby je pense jot na wax ak ñom donc lolu c'est mom si bi wara exploiter lolu domaine am la dus ñun sax suñu domaine mom mo wara wax ak ñom buñ ko joxee ñoom gisuñu ci problème mu def ko donc ci phase bobu la ñu nekk bon zone bi aussi ko gis xam ne littoral parce que qu'on dit littoral aussi moy après talibi mais avant talibi quand même si quartier bi lañu biir nek voilà donc on est dans de Résidence donc actuellement ku nek ngi si approprié né mako mom mako mom mais gën naa ne kenn gënu ko wara mom ñi fi dëkk donc affaire bi aussi lolu tamit ñu wara a xam que c'est une situation bu ñu war ci lolu donc man acteur yi aussi bien le maire et tout ça hier waxtaan nañu moom man li ko wax modi né attribution bi c'est à Abindour et là c'est papier et tout donc légalité tamit lañu wara doxal donc c'est pour elle au pire des cas si warul ko won sax jot je pense que si ko avons def place place pour les habitants de de Résidence ñoom ñu jël ko place publique mais doo ko dindi ci joxe li dafa ku ci les place bi place bi place euh, étudiants sont pas moi, mais qui exploité. Euh, c'est peut-être mais cette place là est naturellement la place dévolu aux riverains de fan Résidence ku ci nek yeen sen koñ fa ngeen jóge ak numu meunti mel worna ma nek amna espace bo xam ka xalé yi buñu ñu ci kër yi foofu lañuy dem tok ñun am nañu loolu yalla def rek sutura la wala noko mëna tuddé kër yi xawa a yaatu gone yi peut-être que wuñu di fi ñew waye bu coo démé ba am ñu dellu ci waat à l'origine place bi c'est la place des riverains de fan Résidence man sama baat ci kaw m'a soutenir Abindour. Man m'a soutenir. C'est moi qui suis le premier soutien, souteneur de Abindour. Pourquoi Abindour, fille le fait qu'il tailleur de pierre. Les tailleurs de pierre, ce sont mes jeunes frères. Man m'a dalal En toute fraternité. bonne ignoré. Ça fait peut-être 25 ans qu'ils exploitent ici. Mais filles, c'est le one. Ku am loy lak ci fan résidence fi nga koy indi. Ku am balit fi Aby Ndour moo ñëw déblayer mo ñëw terrasser mo ñëw carreler mo defar aménagement am ay keuyit yu mu lépp mais pourquoi duñ ci and nous avançons dans ce dans ce man abindou Ndour daf ma wan ay keuyit moo tax ah yo de fi ni yo luñ doon wër parce que ça ça va embellir ici mais c'est tout à fait normal le pays est un pays de de de droit ay keuyit la am c'est le maire qui le lui a attribué. Le maire aussi a consulté. Le maire ne l'a pas fait d'une manière unilatérale. Il a consulté le conseil de quartier et les gens étaient favorables. Donc sur ce plan-là, bon, mais l'une qui reproché, peut-être que le maire, l'une commune reproché ou l'administration, je ne sais pas. Mais mon qui est là, mais faut que Abindour, man, je veux dire aujourd'hui, je ne suis pas Abindou, mais wóor na ma ne amul ay millions yo, xam qui sañ na des def fii ci place bi de dëkku fi te amul kayit sañu ko. elle a tous les papiers les badamiers le cardinal ça ne l'a jamais gêné le cardinal ni fi jitu de pierre fi parce que dañuy toj ay doj mais ça ne nous a jamais gêné fii amul problème on a d'excellentes relations entre riverains et en voisinage on a d'excellentes relations